الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي بسم الله الرحمن الرحيم باب زيارة امرأة زوجها في اعتكافه حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته الحديث وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيين فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا نجي جيان جدا زيارة جي ji te fekk mu ngi ci itikaaf moom borom kër gi solo nañ jëlee ci ali ibn xusain radiallahu anhuma mu ne safiyatu soxna yonent bi salallahu alayhi wa sallam moo ko nettali ne ko moo ko nettali xadis ji ne demoon na seet yonent bi ca fa muy defee itikaaf ca jàkka ja imam ali ibn xusain moomu moo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa nekkoon na ca jàkka ja ay jabaram nekk fa moom mu wax safiyatu nag ne ko yow bul yàkkamti ba ma gunge la ba safiyatu dem yonent bi jóg ànd ak moom boobu mu ngi ca safiyatu mu ngi ca kër Usaama yonent bi génn ànd ak moom ñaari góor te seen ñoom ñu xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne na yonent bi ay ah, xam ne jigéen ci kan la romb yonent bi ne yéen ñaar ñi ñëw leen kii jigéen ji ngeen gis ma àndat safiyatu la bintu Huyayyin maanaam dafa bëgg a seen xol yi bala ñoo dem di foog leneen ci moom di alak alaku wala di leen deen ci dal ñoom ñaar la ñuy xëy subhaanallah ya rasulallah ah daal ñun loolu duñ ko xalaat ci yow yonent bi ne ñëw rek ba gis ko الشيطان دا فاي دوخ سي دوما دما موم دما يرغال بو كو غيسوت مستعلي سي خولي دارا ين نك دي جخلات من لنا انديل بنين مصيبه بو سين دوين كون صلى الله عليه وسلم باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان بن محمد عن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته الحديث وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعالى إنها صفية ربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليلا قلت nit ku nekk ci ayati sagal boppam ci loo xam ne nar na ko tax ok su fekkee nar naa indi jax-jaxal su nekkee ci itikaaf ak dañ ñàkk nag ci itikaaf yëpp su boobaa war na leeral boppam solo nañ jëlee ci Ali ibn Husayn radiallahu anhuma mu ne Safiyatu moo ko nettali xadis yi ba tey déggee nañ ci zuur yi mu ne Ali ibn Husayn moo leen wax ne Safiya radiallahu anha dafa ñëwal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ngi itikaaf mu ne ba safiya di dellu ci kër ga yonent bi jóg ànd moom mu ne góor ci lansar fële ñaari góor la waxoon góor ci lansar xool yonent bi bugg dem yonent bi oo ko ne ko ñëwal kii nga ma ànd safiyatu la mu ne mën naa am Sufyaan wax ne haadihi safiyatu maanaam kii nii safiyatu la waaye la la yonent bi ne ko seytaane dafay dox ci doomu adama ni deretam deretam di dox ci moom mu ne mu laaj Sufyaan ne ko ndax mbir mi guddi la mu ne ko ndax mën naa mën naa lekk lu may ci guddi mënta nekk lu may ci guddi ndax bu nekkoon ci bëccëg du soxla mu naan ko ñëwal ba gis ko kon na xam kan la الله يوصل باب من خرج من اعتكافه عند الصبح حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان بن جريج عن سليمان الأحولي خالي بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد الحديث قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا هو الذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين bunti ku gën ci جليجي سليمان مجليجي ابن ابي نجاه مجليجي ابي سعيد بن الخدري حديث زبوب بتي سفيان وحنا له محمد بن عم جليجي ابي سعيد بتي حديث زوج بتي جليجي ابي سلمه وجلس ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وخنا اعتك افلا ان النبي صلى الله عليه وسلم فك تجدك بي انا بندم بس سؤال يعرفك بي نتواصل من بغاز يرمت بي نولنو صلى الله عليه وسلم بابي وحنا كيف قمنا اعتك افلا na nga dellu ci sa barabu itikaaf te gis naa te ci guddi gis naa suma bopp maa ngi sujjóot ci kaw ban mu ne ba mu delloo mu yonent ci barabu itikaafam mu ne asamaan daal yëngatu ci xiin wu rëy dal di taw taw boo xam ne mu ne muy gën ci ci nga xam ne moo nekk ci dëgg ne asamaan si yëngatu na ci bis boobu ba feesal jumaa ji sax ak ndox ndax mbaar mu ne bi yonent bi jullee suba ba pare gis na ko sama bakkanam bi ak jëm bi jeexital yi ndox mi ak ban bi mu ngi feeñ sallallahu alayhi wa sallam wa salli ala sayyidina